lay teema jóg way fi ngeen jilin seewey ma jëmalul boppam soxna soxna jaara soxna di dey ba mi desil beeñaat tarawlu leenu sant soxna jaara ngir moonu may li tax nu sampi daara xerawlu leen sant soxna jaar salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi nga xamee ne ñoo safoo di topp seen site internet bi di Rafah TV ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare tey ñu ñëw fii ci Poroxaan ci daare maam jaare ji seet ci ki nga xamee ne mooy soxna maam Awa Dem di directrice bi Tapha TV ñëw ànd ak ay naataangoom ñu seet si soxna si ngir bëgg a moom waxtaanu gàtt rek ci daara ji ak doxinu daara ji ginaaw bi ñu la nuyoo soxna maam Awa Deme ngir ñi lay seetaan ñu gën xam soxna soxna maam Awa Deme mooy kan nga indi ñu as ci taarixu daara ji sosub daara ji ak doxinu daara ji. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. yóbbante ak Jamm ji FM di nuyu waa di. ñaan suñu moom mu taxaw mu yàgg fi loolu te gën a wér ak def ci jàmm ci réewum Sénégal li nga xam ne moom lañu fi dégg muy feebar bi nga xam ne moom lëm bi àdduna bi yëpp ñëpp am ci tiitaange yàlla na ko suñu borom yemale foofu ñoom daloon dal lana fa yem ba dootu àggate fenn di law dem fenn suñu borom mën na lu mel noonu ndax ab jaam ñaan rek la am kon ñu ñaan suñu borom rek mu sotti ñu yërmande ba loolu lépp ñu mën a teggeeku ginnaaw loolu maa ngi leen di nuyu di sant euh, di jégglu xëy na xataay yi moo tax rek waaye fii ci daara maam jaara euh, ñu ngi fi nekk comme directrice des études yooyu yàlla wàllu njàngale mi euh, mu doon daara ju mag nag joo xam ne internat xale yi fi lañ dëkk fi la ñuy defe lépp toll nañ ci juróomi téeméer tamit bañ ko door rek léegi tamit depuis 2005 la ko sëñ Mouhamadou Moustapha sosoon ah, ñu doxee tuuti rek yàggu dara mu làqu wàcc ko li nga xam ne tey moom la yàlla suñu borom def muy eh, borom Touba bi sëñ Cheikh Mamadou Mountakha mu doon lu mu fonk nag lu mu yëg loo xam ne léppam da ko ciy def itam jib cofeelam jib ko def ci daara ji ku ne xam na ne moom xam-xam moom la jiital ci lépp te it moo jiital ci lépp moo tax euh, fii dañ fi jàngi alxuraan ba di ko mokkal euh, di bind alxuraan di ko mokkal tamit mokkal boo xam ne mokkal bu mucc ayib la euh, biir mokkal fi ñaar téeméer ak ñeent fukk ak alxuraan mokkal ko. ginnaaw bi tamit ginnaaw njàngu alxuraan moomu njàngum diine moo ci topp ak njàngum xam-xamu àdduna ba ci métier te yëpp dañ ko fi jàng waaye alxuraan ji moom mooy li xam ne ko ak ku nekk euh, foofu ngay doore ba mu agsi juróomi at nga soog dem ci leneen am na ñoo xam nag balay muy mat juróomi at suñu boroom def ñu mokkal am na ñoo xam dañuy agsi juróomi at soog mokkal am xam dañ ko romb sax du tax ñu mokkal moo tax alxuraan lañ ci juróomi at li ci des tamit mu ñetti at yi ci topp njàng yi ma wax topp ci mu njàngum diine njàngum xam-xam xam-xamu àdduna ak métier kon noonu la demee ci daara ji mu nekk ay tut tànk yoo xam ñoom ñëpp maam jaar leen tudd di fi ñëw ci juróom benn at wala juróom ñaari at su ko weesoo nag daanaka duñu jël ko xam ne am na juróom ñaar la jël te jël googu tamit ah, doona loo xam ne yomb na yombut ndax dañ koy def tirage rek ndax ñi war a ñëw dañoo bari bis d'attente bi dafa xaw a fees te place dafa limité ndax juróomi téeméer lañ ci lañ tolloogu ñu ngi woon ci ñeenti téeméer ak juróom fukk waaye ñaari at yu wees dañ ci dolli ci dugalee parrainage boobu sëñ Isaaxa lañ ci dolli juróom fukk loolu xam ne tamit ñu doole ko ci lim bi mu juróomi téeméer kon ñu ngi am yéene di ko yokk rek sëñ bi am na yéene di ko yokk wax dëgg yàlla taale bi tamit ak ñëpp kenn ku nekk yaa ngi ci jàpp ci kamt laay kàttan di dimbale sëriñ bi ci sensibiliser boobu nga xam ne moom moom la mu yor ay tànk yu jigéen toll ci lim boobu te lépp ñu leen koy defal fii ci daara ji am na ku fi ñëw ku nekk ba këram ba jeexal sa lépp daara ji la war fukki weer lañ fi toog octobre ba juillet lu ñaari weer mu août ak septembre dellu ci seen kër yi gisante seeni waajur dallu tuuti ñëwaat lay demee xam ne moom la tànn ak niñ fi ñëwee tolloog juróomi téeméeri donga nekk fi mel na ni juróomi téeméeri yooyu ay jigéen lañ ci niñ ci niñ ko dégg ak ñoom ndax ñoom ñoom ñëpp dañuy ñëw indaale bu ñuy ñëw dañuy fay wala daara ji ñoo leen gàddu ñoom ñëpp ak doxinu daara ji dundi dundinu donga yi ak ñi nekk ci daara ji même ak jàngalekat yi. ko sax mu ko doon tënk rek daara ji moom boo xasee ba dugg ci daara ji. booy dugg kenn du la laaj lu kayitu juddu ak carte daayira yoo xam ne mooy daayira maam jaar te carte yooyu mooy yi nga xam ne naka jekk fondation ci bokk ñëpp ci daayira dañ ko daan dañ ci daan barkeelu muy ñeenti téeméer sëñ bi di ko dajale di ko def ci liggéeyu soxna jaar daata daara ji sax di tàmbali bi daara ji tàmbali tam ñu wéyal ko gën ko yaatal ci biir réew mi ak bitim réew kon sooy ñëw carte daayira boobu leen lay laaj su ko defee ak sa kayitu juddu rek leneen topp ci leneen du ci topp diirub juróom-ñetti at yi nga fi am wala lu soob suñu borom nga am ko fa nu mën a toll bi duñ ko laaj dara duñ ko laaj dara ba keroog xale bi war a àggal delluwaat ci ay param ci wàllu dund bi ci wàllu njàng ci wàllu paj mi ci wàllu saytu bi jàngalekat yi ñu ngi fi toll ci lim bu takk yaay daara yi kenn ku nekk danga am sa yaay daara ci sa néeg mu yor leen kenn ku nekk dangaa am ko lay nettoyage kuy def nettoyage ci daara ji ñuy def nettoyage setal dañuy fóotal daara ji semaine bu nekk ñaari yoon nekk fóotal la ñaari yoon waaw ñooñu tamit ak ñi togg tamit ñu ngi doon équipe boo xam ne dañuy alterner ñuy toggee. fukki fan ak juróom ñi ñëw toog fukki fan ak juróom yaay daara tamit noonu la ñuy def bu ñu toogee fukki fan ak juróom ñeneen ñi ñëw toog fukki fan ak juróom kenn ku ne mënoo ñàkk yitte ci sa bopp moo tax dañ koy dañ koy awante jàngalkat yi tamit ñu ngi fii waaw daara jàng daara alxuraan jàng ba mokkal ko loolu mooy base bi waaw jàng diine ay njàngum xam-xam njàngum métier daf cee dolleeku ndax am centre de formation boo xam ne dañuy jàngal métier métier yëpp la ñuy comme ni ñu koy jàngi ci yeneen centre de formation yi ci biti waaye ba nag ci fi ko yàlla mën a yemale du ñëpp mooy mokkal alxuraan waaye daal danañ danañ def kéem jëkk yi moom. juróomi at njëkk yi moom faaw da jàng alxuraan kese kese jàng ko defee ba noppi tamit nga so nga nga soog a ci yeneen njàng ci des. ñu ko waxee moom mel ni njàng mi xale bi bu fekkee alxuraan dañ koy jële fi yóbbu ko Touba am na commission boo xam ne ñoom la sëriñ bi sant ñu saytu loolu ndax kenn mënut a seet si tey teyale xale bi jàngal ko ci daara ji ba saytu ko ci lépp ñu tàmbale ba keroog muy muy wàcc muy wàcce ba keroog muy mokkal ñoo xam ne loolu rek ñu seen yitte ci daara ji def xool ba xam njàngam rafet na ndax njàngam tege na ci yoon ndax riwaaye bi jël respecté nañ ko lépp mu mat su ko defee xale bi dañ koy waajal ci loolu di ko natt natt ko ñaari natt ci at mujj mi nga xam ne ci la war a demee tare ji defal ko ñaari examen yoo xam ne da koy ci ciy jaar fekkee ñaari examen yooyu yëpp nag eh, jaar na ci fii ci daara ji ñu soog wax ne kii de nañ ko présenté mu dem ci jàmbur yi ñu xool jàmbur ne jàmbur mooy mooy ci daara ji waaye dañuy dem Touba commission bu fa nekk sëriñ bi moo leen sàkk téyel leen ci suñu eh, ñàkk a teewe ñun duñ ko teewe ndax su boobaa eh, daal saxal ndax mokk na wala mokkul biñ biñ mokkalee ne sëriñ bi sëriñ bi ci boppam mu leen jox lijaasa boo xam ne lijaasa ko mokkal alxuraan la wax ne moo ko signé ci loxoom bu tedd bi sëriñ Mouhamadou Mountakha jox leen ko ñu jël si waat ci daara ji daal di tàmbali nag di jàng jàngu majlis dafa naan majalis lañ koy wax ji mooy xam-xamu mag ñi téere sëriñ Tuubaa yi xam ne xam-xamu dina lay jàngale am na ku leen koy jàngal ak di leen tàggat ci njàngam bind ci ci àlluwa ci ciy jàng bind euh, ndax ko ci rafet loxo da bind kaamil ci boo boo tamit euh, di fi am arab boo looy jàng ci arab français bi tamit da ci jaar ndax centre de formation boobu ma doon wax moom tamit day dañ fay jàng ba am fa diplôme boo xam ne day ne kii def na circuit centre de formation ak léegi si biir fi jëm mu mën ko yóbbaale mën cee continuer di ci liggéey kon diplôme yooyu moo fi am diplôme alxuraan bi borom centre de formation bi waaye tamit dinañ la def joxal attestation boo xam ne dañuy wane ne kat. arabe bi français bi day lu ci nekk jaar nga ci jaar boo xam ne dañ nga ci ak bu baax a baax a baax baax bu neexee nga topp pour ku la gis xam ne yow mi kat bu la neexee nga jàng jàll jàng ci far arabe neexee tamit nga jàll continuer sa français bu la neexee tamit nga dem jël sa métier di ci di ci liggéey di ci dund bu neexee tam nga jàngal alxuraan fekk moo ko nga ko léegi bu dajee tamit du ci xool ku nekk rek li nga ci def lépp danga koy xeeb te du metti ci yow xam ne ku ci ñëw ku nekk rek yow dangaa war a sant suñu borom xam ne yaa ngi ci liggéey bi nga xam ne moo ëpp solo liggéeyal ko ki nga xam tamit yar na ko liggéeyal bu Serigne Touba Soxna Jaara kon loolu moo tax duñ ci taay duñ ci sonn hmm, coono nag àdduna mu ci la nekk. ñëpp dañuy sonn yow mi ne sa kër sax yor sa benn doom ñaar ñett da sonal wóorom nga dajale ay téeméeri téeméeri téeméer macha allah di leen saytu ku ne xam eh, ne coono ko yëg boo xam ne coono bànneex la coono bu am barke la bu ko jaral moo tax doo ko sax yëg waaye ku ne xam ne yortu tànk moom gisut yaayam gisut baayam nga war koo jàngal ba pare war koo dëkkoo ndax bu doonte day jàng rek sax dem yow nga dem sa kër mu dem këram kenn ku nekk noppal bu setee ngeen dajawaat dina tane waaye yow yaa nekk école am yaa nekk këram fii nekk école bi mooy nekk kër gi xam ne kon da nga yor école ba ngoon jot nga nga fanaane yor kër xam ne sa àjjuma bi nga xam ne yaa ngi ko war a noppal tamit dangay yor kër bu samedi ba àllarba nga yor école kon toujours yaa ngi diggante école ak kër loolu. ne xam ne du doon lu lu woyof ne doon lu woyof waaye surtout ngay def ko ci du tànk yoo xam ne seen ak juróom-benn la tàmbali jëm ko waaye tamit dama njëkkoon a wax rek def ko ci alxuraan ba pare def ko ci poroxaan dana tax yow doo yëg coono xanaa yi ci li ñuy defal ci teraanga di ko sant di ko delloo sant sant sa Ahmadul Xadim mi nga xam ne nii moom lii lépp moo ko waral di soññaat ñépp rek ci gëm yàlla ak topp yàlla ak di jëfee ndigal Sëriñ Tuuba ay tere wallaay sant sama bopp di ko sant ñëpp tamit ñëpp tuubaat delluwaat ci borom bi kenn ku nekk fa ngay xentu sa borom muy suñ boroom yàlla mi kenn kenn ku nekk fa nga yëg yëg ne foofa la la la yàlla féete ci sa xol boo ko sant ko boo ko tuubaat ci moom tamit waaw ndax am na lu bare bare bare bare yu xew yoo xam ne ah, ku jàng histoire ci ginnaaw delluwaat ginnaaw da nga gis ay xew-xew daana xew bare yu doy te suñ borom daf ñu ko nettali subhaanahu wa taala ci alxuraan ci ni daan def ci xeet yi nga xam ne dañoo nekkoon ci càggante xeet yooyu tam danaa am mu daan jëflante ñoom kon càggante googee nañu fexe ba di ko moytu dafay di tuub fu ñu toll di sàkk saraxte yàlla tax tey jaamu yàlla tamit tey ko tooñante tey moytandikoo fay tooñ te gëm suñ borom te wóolu ko tamit ñu ñi nga xam ne nag dañu tuddoo Serigne Touba tamit ñu xam ne Serigne Touba moom foo foo luwut fa moom bokk ko ci moom neex na nga ne Serigne Touba laa bokk lu neex nga nekk ci waaye moom daf ko wax ba leer te kuy foo ku defe naa sa tànk ci jiital sa njaboot njabootu Serigne Touba gii muy góor muy jigéen kenn daaw ci fo kenn ku nekk soxna Fatou Jami taawam. ku ne xam na ni mu toll ci taxawaay ci diine ci ak jub ci mën a yar ci tarbiya rakkam yëpp àndoon ci moom kon daanaka suñu waxtu su dañuy gën a wax màcc ci jigéen ndax jigéen ñi daanaka dañuy defe ne fi ñu toll rek ci fo lañu war a nekk ak ci ay caaxaan te doonte suñu borom dénk de leen tamit ñu am jomi luñ dugg kenn du leen ca man waaye tamit ñu bàyyi ci xel ne kon li ñuy dugg ne nañ ko seet ba mu dëppoog la neex Serigne Touba dëppoog li nga xam ne moom la Serigne Touba daan digle ndax bëgg nañ soxna jaar lool di ko roy bëgg nañ ko lool ci seen xol waaye dañ ko war di roy roy gi moo des ànd àndandoo ñëw ko ci xol xar ak xolam bëgg fekk ci bëgg soxna jaar ki nag li mu bëgg da koy nëru nërulu soo bëggee dara danga koy nëru nërulu gis ngeen ba tàyyi ñi nga xam ne ci wàllu àdduna dañuy féete fo mi sax ci wàllu lépp rek duma ci tudd lenn kenn ku nekk kala neex ci la muy féet da ngay da ngay fexe bay mel noonu ci lépp ci sa doxin sa waxin sa comportement kon nag bu fekkee dangaa bëgg nit ki ku toll na soxna jaar ci sa xol ah te li mu am xam nga xam ne loolu loo xam dafa jékki-jékki rek am ko dafa sonn dëgg soog ko am te sonn dëgg soog ko xaw a dee rek soog ko am waaw boo ko defee booba tamit da ko war a roy ca la def te ñu ko niru niru niru ko ci jikko yu baax niru ko ci ak yiw niru ko ci jéggale ci jëllale niru ko ci yar sa njaboot ci diine tàggat leen ci. sell bari sutura naandu yooyu bu ñu ko defee suñu borom dinañu defal tawféex suñu borom ci ndab lu set lay def muy def li muy def ci ndab lu set wecc la ko def dafa bari la nag dafa kenn ku ne yaa ngi ci biir yërmandeem ci dañuy wax arrahman turum boobu ñëpp la yërëm ñëpp kenn ku nekk maa la jox nga lekk di naan di sol yor say oto yor say kër di dem ak dikk loo ko tooñ tooñ mu defal la lool du ko xool waaw loo mën a nekk suba ba ngoon du tax mu dindi loolu dañuy seet sax xëy na ñi ci gën a sàggan di ko def ñooy ëppale nga ñu leen di ñëwee déedéet waaye moom dafa dafa yërëm ñëpp rek dafa ñëpp moo tax muy def loolu kon nag kenn ku ne dangaa war a gestu ki fi indi la fi bàyyi te xam ne faaw danga fi jóge dafa nga jëm nag fan la ak loo fay fekk ma mat a bàyyi xel maa ngi guddal waa tuub gi daal moom maa ngi ko dénk sama di ko dénk ñëpp tuubaat dellu ci yàlla te dellu ci santaane yi suñu kilifa yi rawatina ko bokk ci Serigne Touba lépp lu mën a doon danga caa dema dema dema dem ba nga xam ne sa kemtulaay kàttan daal foofu daal laa yemal sama kàddu doon naa sax waaye sant bu baax ilay teemaa jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma boppam soxna jaara soxna jaara soxna jaara moo di dey ba mi desul feeñaat teeram wari masin ba joona suubu leen dem gaar ba jóg leen taxaw établissement waa kër Serigne Fallou WSF bii le barab ñoo leen di liggéeyal ba mu taaru ci lépp lu aju si wàllu menuiserie aluminium métallique inox staff décoration ak it faux plafond bu ngeen bëggee liggéey bu set sell si ay machine high tech dernière génération ay machine centreuse inox fer établissement bi yembal na buntam yéen ouvrier yi koy itteewu te nag bëgg liggéey bu xarañ bu dee seen wàllu fabrication aluminium porte fer baie vitrée de rideau façade lépp a ngi fii mboolem liggéey bu aju si wàllu métallique porte garage grille de sécurité porte rideau rampe escalier garde corps balcon ñëwal fii lañuy liggéey si wàllu inox moo xarañ bul la nag jàppale saf décoration nga xam ni liggéey bi am na borom am na ay corniche faux plafond ak lépp daal mbokk yi lu ngeen di itteewoo si wàllu wii bu ngeen accès fii mu yemb barab baa ngi si Dakar Parcelles Assainies unité 25 numéro 88 téléphone 33 835 84 15 882 15 15 70 734 34 22 wala si 76 287 82 18 am nañu adresse email di waa kër Serigne Fallou arobase yahoo point fr gaaw leen gaaw mbokk yi yéen ouvrier yi yéen ñi bëgg seen kër rafet bëgg mu taaru ànd ak jamono bu seen xel dem fenn fudul établissement waa kër Serigne Fallou. masin ba joona suubu leen dem gaar ba jóg taxaw